ay waa BG koy wañ fii ñu way mbay génnal réew mi demal baa nga soobu ci gi ay boo laal mu ne la mbaya fi seede leen loolo ay waa BG Sidi Aboubacar ay waayi seede leen loolo soo waxal ma buur géwél aca kuy bañ fii ñu way mbay ay waay gennal réew mi demal mbaa nga soobu ci géej gi xolal jën mboolaal mu ne bama mbaya fi ne seede leen loolo ne leen jaajëf borom Tuuba ne nanu jaajëfe borom loolu dafay yëngal aras ne leen jaajëf borom Tuuba nanu jaajëf borom man bëgg naa leen ne leen jaajëf borom Tuuba Babacar loolu lay wax à tout moment mi Aboubacry Samb moom laa seesi tey muy répété nag fii si Blaise Senghor di waaj nag lu rëy mais lépp rek si kanam dina da ngeen ñuy déglu rek xaar ñu tuuti ñu jox ko micro bi mu nuyu mbokk internet yi Aboubacry ziar naa maa ngi lay nuyu di la fay di la ziar euh, di nuyu suñu mbokki internet yëpp di ziar bu baax a baax a baax waa BG TV di am cofeel bu baax ci képp koo xamante ne yaa ngi bëggee di safo naa Mohamed maa ngi lay ziar man tamit. barki dina la fekk ci répétition xam naa sax waxtaan mi du yàgg ndax da nga yàkkamti am yu bëri yooy def mais mun nga ñu briefin tuuti rek euh, jaar jaar beeg yooyu daal pour ñi lay seetaan. waaw jërëjëf Aboubacry Samb na ma ko yàgg di waxee rek benn taalibe la benn missionnaire u Seydina Mohamed waaye itam di benn ambassadeur u Serigne kër si yàlla dogal ci moom la mu dogal ci moom muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk xale nit ñi sopp ko ci yonent bi ak Serigne Babacar Sy Euh, ma nekk daal benn missionnaire boo xamante ne daal sama yitte yëpp lenn la mooy béggal waa kër Seydina Mohamed yëpp loolu loolu daal mooy sama yéene kooku mooy Aboubacry Samb. mais lan moo la ma ko. waaye donnu ma ko na ma ko yàgg di waxee rek euh, ndax man ki jur sama yaay. di sam maam bu góor moo jëloon oto jox ko sëriñ baaba kër si jëndal ko oto ba noppi ba pare ne ko man maay sa chauffeur moo tax benn góor nee na ma volant bi volant bee la dalaat donc tëbuma tëb rek waaye ndax sama yaay dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye itam bëggoon sëriñ kër si waaye daf ma dab parce que personnellement man xaw ma ne woon que ne jamono dina dox ba may way parce que jàng naa bi jàngu jotee liggéey naa def naa maintenance réseau def naa aussi transit ci benn boîte bu rëy ma leen di nuyu bu baax a baax di waa IT Sénégal donc tey bu yàlla defee ñuy way euh, dañu koy sante yàlla di ko gërëmee rasulullahi ndax benn mag nee na ma yonent bi moom mooy tànn ñi koy way donc nag tey bu ñu bokkee tey ci ay ambassadeur am ci ay missionnaire am dañu ci sant yàlla bu baax a baax a baax aw ma nag benn mbokk buy way ndax doomi ndakaaru laa doomi lébu laa tey bu ma woyee tey xëy na dina jaaxal ñenn ñi ah parce que parfois ma way way way woo xamante ne ku nekk danaa ma laay saa yi def nga yëfi géwél de wala géwél nga de donc mais c'est parce que géwél yi ñooy def du neex dama koy faral di wax à tout moment ma ne li tax ma bëgg ñoom Abdou Aziz Mbaye ba su ma nit doon wax lan ngay bëgg a doon ëllëg dama naan ko géwél li tax ma koy li tax ma naan damay bëgg doon géwél parce que géwél yi ñoom Abdou Mbaye dañuy woy lu neex a neex a neex ma leen di nuyu de passage waa Kër Moussa Ale Mbaye yëpp di ñoom Ibrahima Mbaye ñoom mam ah gis nga ñoom Ibrahima Ibrahima Mbaye ñoom mam As Mbaye ñoom Moustapha ñoom Abdou Aziz Mbaye bu Pape Dawgour Sidi Ahmed Mbaye euh, ñoom Ngañ Mbaye ñooñu yàlla moo dogal ma ma ma vraiment ma sopp leen jàpp leen bu baax di nuyu nag waa kër yonent bi yëpp. xëy na ñu dama liim rek waaye am naa ci koo xamante ni tamit suma xarit la di Serigne Sam Mbuub ah donc sànq rek ñu ngi déggante téléphone donc daal way noonu la dikkee ci man aw ma benn mbokk buy way euh, yat wi daal moo ma dal noonu. Abou Bakry mun nañu wax xale bu sopp la yat bi dal na la gaa moom mais album yeeg single yi ñaata la ndax macha allah buzz bi bëri na de. <laughs> waa xam nga xam nga buzz bi du dara lu dul yonent bi rek. Hmm? parfois nit tooñ waaye saa looy takk looy sangoo looy def nii looy def ne ah mais yonent bi la rek ndax sa euh, waa ji mooy ku sakkan ki sallallahu alayhi wa hmm? donc on a fait des des des des des single ah, yi bëri na boobu ba léegi je pense que li tax nit ñi xam ñu mu ngi yem ci single yi kese mais nag am na foo xamante ne bu ñu si tolloo rek dafay jaar yoon ñu liggéey liggéey bi mooy tey amaana yow nga soxla ay son wu Aboubacry di ko déglu di ko déglu di ko déglu te tey bëgg nañ dem au niveau international donc man ak suma équipe yi nga xamante ne ñoom la ma yàlla booleel ñuy ay ndaw ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey gis nga ñi may ànd ñëpp ay xale lañu hmm? mais nag am nañ ay mag aussi yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy conseiller tu vois donc euh, voilà ñu ngi liggéey daal ci album incha allahu rabbi ndax ñu ngi wàcc lu rëy rëy rëy ca biir grand théâtre ah. donc xam naa du yàggati dara bu neexee yàlla dinañ leen wax kañ la euh, nga xamante ne ci jour boobu nag la ñuy présenter album bi incha allah. foofu laa ñëw léegi wax nga grand théâtre mais dañ naan di score gi à chaque fois euh, si waykat yi naan dem festival salaam Aboubacry mës na ko mës na participer wala festival salaam da ak Aboubacry Euh, waaw mës nañ participer festival salaam hmm, je pense que année bi festival salaam di njëkk a tàmbali bokk nañ ci ñi ñu woowoon donc boobu ba léegi am na benn année boo xamante ne nag dew moon festival salaam e puis je pense que année bi aussi woote nañu festival salaam ci anam boo xamante ne anam bu anam bu yiw anam bu rafet anam bu neex way waa kër yo yonent bi ñu ñëw Seydina Mohamed parce que am na ñoo xamante ne Aboubacry rek la ñuy béggee te mënuñu gis Aboubacry chaque jour am na ñoo xamante ne yeneen waykat yi la ñuy béggee te mënuñu leen gis kon lu mel ni festival salaam pour man warul di gëj warul di gëj di gëj di gëj ci réew mi parce que euh, ni ni musique bi amee doole war nañ def de telle sorte que diine bi amee noonu doole donc vraiment man festival salaam geste bu may bu may bu may bu may saluer la franchement parce que may na fi. tey bëri na waykat yoo xamante ne xam nañu leen ñu ngi leen xamee à travers festival salaam tu vois parce que ñoom itam ñoom la yàlla may xëy na ñu mën a fësal bu ñu defee lu mel noonu ñu siy nuyu suñu papa Youssou nduur ak suñu papa Mara Dieng ak équipe bu TFM yëpp wax dëgg yàlla parce que ñu ngi def liggéey bu am solo donc nag li may faral di wax euh, soppe yi ñoom ñoo ñu mën a dimbali ba ba ba ba ba ñuy mën di organiser wu ci yenn mbir yi tu parce que festival salaam am na ñoo xamante ne neneen dañu koy gisee ah neneen dañu koy gisee mais man franchement gis-gis bu rafet laa ci am. mais Aboubacry Sénéra fan yi mayu leen dara de ndax télé bu nee ngi def émission religieuse am ah bu ma toogal jàngkat bu ma toogal dama la koy laaj fan yi moom Sénéra moom bind na amaana boo ko xamul ñëpp dégg nañ ko. lu mu bind. waaw Sénéra fan yi dafa parce que seen émission euh, koor gi si télé yi dañu bëri. si sama wax bu gàtt ni euh, waykat yi est-ce que duñu indi problème bi parce que ku nekk da ngay ñëw ak sa aal ndax euh, famille religion bi nga bokk ku si nekk taaliba cheikh bi day ñëw murid bi day ñëw te ku si nekk da ngay jaayu xam nga wane fi nga bokk. Mhm. waaw Sanera fan yi bind na Aboubacar bàyyi nga def man yow laa koy laaj. waaw waaw waaw waaw xam nga yow. am ñu bëri ñu ne est-ce que sax waykat yi duñu indi problème bi parce que ku si nekk boo ñëwee rek da wane fi nga bokk te loolu ëpp na. yow da doy waar. CNRA hmm? bu bindee euh, man dégg naa ko nii nii rek. mais li dégg nga ko dégg naa ko nii rek. <laughs> moo tax ma posé waat sama <laughs> question. ma ci leeralal tey tey tey am na solo. boo xoolee léegi léegi maa lay wax ne le festival salaam am na solo mais soppe ñoo ñu mën a dimbali à que ñu mën di organiser wu bay bañ di wàcc yoon bi boo déggee ma wax la loolu mooy boo xoolee abu Aboubacry tarixa yëpp lay way tarixa yëpp lay way Cheikh El Hadj Abdoul dafa wax ne bihi naa la maa naa la rijaalu maratiban mu ne góor yàlla yëpp li ñu amee ñu ngi ko am ci tagg yonent bi Cheikh Ahmadou Bamba li mu am yàlla mu ko ko may ci barke tagg yonent bi Cheikh Seydi El malik la mu am mu ngi ko amee ci barke tagg yonent bi Cheikh Sadul Abi maam Baye li ñu am yëpp ñu ngi ko amee ci tagg yonent bi mais je peux pas concevoir yow tey ma ne man sama baay moo gën sa baay yàlla dafa bind maye te yamalewul waaw am na lu ma yàlla may am na lu la yàlla may buur am na lu ko yàlla may kii am na lu ko yàlla may ku nekk am na lu la yàlla séddee euh, donc su fekkee benn waykat dafa bëgg ñëw ne non sëriñ Touba lii lii lii lii lii ba fàtte Serigne Serigne keneen bu boobaa da ngay tooñ yow waxal rek li nga xamante ne moom la Serigne bi bind ci yonent bi may yi ko yàlla may tijaan bi tam ñëw waxee ko ci anam bu rafet. ba murit beeg tijaan bi ku ci nekk mën a woy sa moroom wala sa sëriñ je pense que defar rafetal tarixa yi moo gën ñuy ñuy yàq tarixa yi voilà donc franchement man daal euh, CNRA li ñu def man ànd naa ci bu baax a baax a baax parce que dina mayaat tey nit ñi mooy li ma doon wax rek kilifa dafa baax xëy na ñoom ñoom la fi yàlla teg pour ñuy mën di di di orienté waat nit ñi ci wàllu télévision ak bu nit ñi naree déraper franchement lu may lu may saluer la franchement parce que man duma ci tiit duma ci ragal parce que man sama yitte yëpp mooy boole tarixa yi boo xoolee way naa Serigne Babacar Sy way naa Serigne Touba way naa Cheikh Modou Kara way naa borom daaru way naa Serigne Saliou Mbacké kon CNRA bu nuy wax tamit ñeneen la nuy waxal waaye waxuñoo ak Aboubacry ah donc nag keneen ku mel ni abu Aboubacry tamit waroo tiit waroo tiit waroo ragal ci bu CNRA joxe benn daan ne diw bu woyee lii wala télé yi bu ñu tegee lii tiitaange di ci am yoon franchement je préfère daal ñu gën a organiser wu gën a jàppante te yàlla rek a tax. Aboubacry sama question fi may ñëw léegi wax nga ko abu Aboubacry fédérateur la loolu àdduna bi ñëpp wax nañ ko ndax yow yemoo rek si euh, taalibe Cheikh ah ñëpp ngay way am nga benn ay quelques euh, son yi may déglu Serigne Touba Serigne Saliou way nga aussi borom daaru ah sama Serigne boobu nga xam ne day gën a yàgg day gën a wér ah Thierno dundal lu bëri bëri ah Aboubacry fédérateur la moom. waaw Aboubacry fédérateur la. du man initiative boo xamante ne man maa ko jël ndax yàlla mooy li ma la wax rek yàlla moom mooy jël dara rek orienté ko ci xelu nit ki wala ci xolu nit ki man noonu la ma yàlla bindee tamit ci loolu lañ ma yaree loolu rek laa bëgg tarixa yi ñëpp doon benn waykat yi ñëpp doon benn même bu fekkee nekkul lu yomb parce que àdduna dafa jeex ba noppi mm-hmm. te man avant may ñëw fekkoon naa fi yeneen i waykat ñoo xamante ne dañ daan toog nekk xale yu ndaw di leen déglu bu yàlla dogalee nag man may tagg yonent bi damay am benn vision man dama dama man dama am vision en fait dama am vision si lu bëri xëy na nag dafa jotagul pour ma egg ci yenn niveau yi euh, tey par exemple boo déggee ma wax la ci yenn niveau yi mooy fu bér si toll tey bëgg naa fa yóbbu tey tagg yonent bi euh, di di modéré di boole tarixa yi di boole suñuy soppe parce que man tëbu ma tëb rek way Serigne Saliou dama woy Serigne kër si murit yi di ma message di bind di commenter man murit laa mais yaa tax ma bëgg tarixa cheikh murit laa mais yaa tax may déglu wayu Tidiane ma ne ñii nag foog ma delloo leen njukkal te Bamba ak Maodo ku leen di féewalee da ngaa xamul ndax ñoo bokk maam maaram donc nag fédérateur bi ma doon maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax wax naa ko léegi ambassadeur la ambassadeur u naa Mohamed la euh, missionnaire u naa Mohamed laa donc li ma mën a def rek mooy boole ñëpp boole samay soppe boo xoolee tey am naa soppe Tidiane Mouride xaadir ñaseen ba ci catholique yi donc rëccu ma benn yoon modérateur bi ma bi ma nekk. Euh, Aboubacar yi ak réseaux sociaux yi abu Aboubacar ak jeunes yi maanaam bëri na ci ay soppe damay gis sax ñuy dagg sa ay vidéo yu bëri ah di ko def ay statut ak euh, yaay boo yi tamit bëri nga ci soppe Aboubacar yi indi touche personnelle am. tey sax dama gis nga def traditionnel mais abu day def chemise am yi baax dafa ay lacoste yi baax def vidéo ah tey li tax ma def nii euh, dama amoon programme dama amoon programme moo tax ma def nii mais vraiment man daal ay affaire yu tubaab daal lay def rek waaw ñëw sa touche personnelle sa touche personnelle nga indi de sa ay lacoste blouson de sa ay chemise yu baax di way sa waay man Aboubacry lan la loolu mooy secret bi tamit ak bës bi. waa xam nga euh, wax naa la ko léegi léegi ñun suñu bayre ak suñu bës du dara lu dul yonent bi rek du dara lu dul Serigne kër si tey bu ñu fekkee dañu saf ndaw ñi saf mag ñi dañu koy sante yàlla bu baax a baax certes que nag euh, du ñëpp ñoo lay mën a bëgg ndax fu la nit ñi bëggee dina am ñoo xamante ne dañu lay bañ mais man je vais pas dire que nit ñi dañ ma bañ hmm? je vais je vais je vais jamais dire ça mais nag. Euh, dañu koy sante sunu borom bu baax a baax a baax li am ci ñun euh, bu dee bës bu dee xale yu jigéen ñi bu dee mère ñi bu dee góor ñi comme ci mënti doon rek dañuy xam ne lii yàlla moo ñu ko dénk moo ñu ko dénk te dañu koy téye bu baax a baax xam ràññee bañ a doon star bañ a yëkkati suñu bopp ndax xam nañ ne bis bu ñu yëkkatee suñu bopp rek suñu borom jël ko te nag ah euh, roi des arènes bi couronne bi bëgguñu koo jël. Euh, bëggu bëgguñu bëgguñu koo perte donc nag nu nu nu koy nu nu koy ni nu koy garder mooy tey euh, succès bi gisuñu ko parce que tey man boo ma gisee nu ma neex laay doxee sama koñ nu ma neex laay doxee ci mbedd mi donc loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax. Aboubacry di waaj bés muy anniversaire am le 24 avril muy samedi. waaw ñu fekk la sax ci répétition xam naa bës la moom rëy na loolu man maa ngi ci biir de damay def sama gramme bu mu wàcc. non yéen yéen yéen a ngi ci biir yow faw nga ñëw. sama mag tamit faak mu foo foo mu ñëw ah buur géwél mu nekk nit koo xamante ne nit ku ma soutenir la nit ki nga xamante ne daf ma daf may conseiller nit koo xamante ne daf ma daf ma gëm hmm? donc nag yéen bu ngeen ñëwee da ngeen war a ñëw bu ngeen ñëwul da ngeen war a ñëw euh, xam nga ñu war a répéter fi mu ne nii suñu temps fi ne nii passé na sax waroon nañ. liggéey bi nag mais mais yéen non non xaaral mais yéen. mais yéen fi mu ne nii kenn mënul leen dara waa <laughs> xam nga mais sant yàlla donc benn bés la boo xamante ne wax naa la ne la dañu bëggoon dem grand théâtre mais Covid bi moom moo ñëw yàq lépp donc man ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ñuy sama ay soppe ñoom ñoo organiser benn benn sargal parce que sama anniversaire le 20 avril la woon donc ñu ne abu Aboubacry dañu koy sargal. def grand théâtre à Zac mbaaw te ñu ko organiser ay xale rek lañu ñu tuddee ko Abdou Karim sàll parce que ñoo bokk Mbao tuddee ko euh, Abdoulaye Pouy maire maire Mbao parce que ñoo bokk Mbao ak suñu yaay Awa Mané donc nag ñun nam mu bégal nit ñi nam mu bégal nit ñi nag ci beneen facet la ñuy ñëwee parce que à chaque fois man damay wax ne je suis un chanteur universel boo xoolee tey répété bi ni mu ni mu demee nii nga war a xam ne non ku ñëw di nga di nga dégg di nga bég dama wax ne musicien bi buy dem Bercy show lay def waaye ñun euh, Zac Mbao yi tamit show la nu fay def ndax son yu lumière la ñu fay def bu bu bu neex loo xamante ne du génn ci cadre tag yonent bi ak woy mag ñi incha allahu rabbi. Aboubacry l'émission tire à sa fin mais ba muy ñëw dafa am ñu ma soufflé ne Aboubacry moom a Waly Seck dañu xaw a ay façon. <laughs> xam naa di nga ne xale bii. waaw man mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax fi mu ne nii kay ñun waroon nañ commencé bu yàgg mais xam naa ne. Euh, du ngeen ñu may dara dara dara dara dara dara man xaw ma say say question daal noo ko préparer ak ku la yeb mais yeb na la. Euh, Waly maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax moom sama grand frère la ndax ki ko yar moo ma yar ñoo bokk yaay yi tamit ajaratu ndey wuri ba euh, moo ma yar. Euh, may ñaanal itam suñu papa alxaaj Thione Ballago yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ci barke yonent bi ndax tey la quarantième jour am mi ñu ngi koy ñaanal yàlla na fi mu nekk yàlla na ko gënal bu baax a baax a baax fi mu jóge Wally c'est c'est un grand frère ah suñu ndróowee loolu yàgg naa ko dégg boobu je pense que wayeguma sax bu ñu ndróowee war na moom moo nekk ci musique bi man ma nekk ci tagg yonent bi rek te ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doomam moom moom nee na bu ko yàlla mayoon dix doom wala vingt doom yonent bi la koy tuddee mu nekk nit ku baax nit ku simple euh, mbokk lanu mbokk lanu mu nekk nag nit koo xamante ne wax dëgg yàlla ku ma bëgg la ku ma fonk la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar donc nduroo bi loolu rek la mooy dañoo bokk ki ñu yar te ñoo màggandoo. waaw incha allah ñoo ngi lay remercier ah Aboubacry Samb si disponibilité bi parce que lii yombul da nga nekk si répétition aussi da nga xat parce que dangay waajal anniversaire le 24 mais dis nga dañu jël yëpp sa temps di la rey ak woote téléphone nga accordé ñu ko yal baat bi wér man loolu laay leen ñaanal parce que lii yombul ah baat bi naa na wér rek nga yàgg fi loolu gën a yàgg gën a wér mbokk internet yi Aboubacry Samb laa jëloon si. tey fii si BG TV émission bu neex la maa ngi leen di jox rendez-vous ak beneen émission ak seen sista Amy Niang bu jeexee jeex na.